alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin sayyidina walana muhammadin amin wa alihi wa ajmain bokk jullit ñu ngi sant sunu borom wala fàttali sunu bopp te di leen fàttali ragal yàlla te ñu bokk xam ne ñeenti weer yi ngëneel yi alxuraan di tudd benn ci agsi na muy rajab bari ngëneel lool tabarkeel lool mooy ñeenti weer yi borom bi di wax ci biir alxuraan naan minha arbaatun xurum di wax ne su ñëwee bu leen ca tooñ seen bopp fala taslimu fi hinna fusagum bokk ji dee jaamu yàlla gi ñuy def amul lu mu yokk sunu borom goo ci def sa bopp nga koy defal naka noonu safaan boo ci def itam ci sa bopp la jëm si te ñeenti weer yu barkeel yi jëf ci yiw am na solo lool su dul ñeenti weer yi loo def ci lu baax te mu sell suñu borom ne dinaa ko ful fukki yoon delloo la ko waaye su dee ci weer yi nag ful ga suñu borom rek moo xam ne muy toll noonu lañuy ñuy fule itam ku ci def safaan safaan boo ci def itam ci sa bopp rek la jëm si anas ibnu malik radiallahu anhu nee na su weer yu masaana teru yonent bi saa sam daan ñaan di wax allahuma barik lana fi rajab wa saxbaana wa balliqna ramadaan moo tax moo laana tabaraka moo def ngëneel ci ay bis moo ko def ci ay weer def ko ci ay guddi yu mu diwul ca yee ca des lépp ci yërmandeem ci mbaaxam ak fonk gu mu fonk xeetu sayiduna muhammad ak yërëm gu mu leen yërëm ak teraanga ju rëy ju mu teral sayiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa xam ngeen ne nun xeet lañu wow du ñu yàgg àdduna ni ko xeet yi nu jiitu daan yàgge waaye borom bi tànn nañu ay weer ay bis ay guddi yooyu suñu farloo man caa dabaatal jaamu yàlla ak ay at yu bari moo tax imaamu saafi radiyallaahu anhu dafay wax ne nee na juróomi guddi mi ngi nii guddi yi yaakaar nangu ñaan la kon na ngeen ci farlu ci ñaan su ñëwee mu ne ka ca njëkk mooy guddik aljuma ak guddi bët set di korite ak guddi bët set di tabaski ak guddi gi njëkk ci rajab ak guddik nisfu saabaan nee na su ñëwee na ngeen góor góorgóorlu ci jàmm yàlla bu baax waaye na ngeen ci ñaan seen borom képp xéewal gu ngeen yaakaar waaye xéewal yi bokk yi li muy bari bari te noppale lu bari ci nit ñi duñu ko jariñoo lu tax seenu xir ñu ngi ko jëmale ci topp ay aada inna wajat na abaana aada say waxtu yépp lay jël nga def ca sa kàttan gépp te lépp di neen nit a ngi dukki dukki ñàkkutooy xépp te wallaahi la muy def boromam sant ko ko tuxaliwu ko fenn ci sunna te moom mu koy def nee na dafay jaamu boromam sunu boroom kenn du ko jaamu ci xel mu rafet ak làmbutu sunu borom ku mu layool yaay la ndax lépp leer na dafa yónni ay ndaw ñuy ay doomu aadama ni nun du ñu ay malaayika du ñu ay jinne jox leen ay téere ñu jàngal nu ko jëfe ko nuy gis ka ca mujj di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bi wax ne may yotixi rasula faqad ataha allah delluwaat wax ne wa in tutiihu tahtadu nee na ku topp yonante bi nee na topp nga yàlla waaye nee na su ngeen ko toppee su ngeen ko toppee gindiku ngeen moom la suñu borom yónne woon ci nun te matal na sëkk lépp ci nit ñi nag ku ñu yéem boole ko ci ñu yàlla yónni lu ñu gis nga di ko def du ñu gis lu ca suñu borom wax dañu naan kii li muy def borom bi moo ko digle déedéet dañ ko war a wax ci masaalikul jinaan ne isbaana jaxran annama suyoo xasa samaana julluhum fuxuum nee na feeñ na te leer na naññ na li ëpp ci sëriñu jamono ji ñëpp ay fiir ay fiir lañu moo tax borom bi wax na yomal xiyam nee na suñu demee ba ñu wëlbati xar kanam yëpp ñu jàkkaarloog safara yawma tuqallabu wujuuhum fi naar nee na yaquluun dañu wax naan yaa laytanaa ataana allah wa ataana rasula ak a neexoon topp yàlla ak a neexoon ñu toppoon yonente bi ñu wax ne rabbana inna ataana saadatana wa kubaraana fa adalloona sabila su yow sunu borom nun de danoo toppan suñu sang ya topp sunu mag ñu baax ñu yaakaar ne mag ñu baax lañu ñu réeral nu ci yoon yàlla ñu mere leen lool keroog di ñaan sunu borom naan leen rabbana aatim dixfayni min alxasaabi wala xanhum laxnan kasira naan yow sunu borom yàlla na nga dikk ñoo ñoo ñii ñaari yu ñu ful ci ay mbugal te nga rëbb leen rëbb mu bari te kat ngi ñaanal lii ñoom la ñu doon xëyal ci leen gontal ci àdduna di dukki dukki ñàkkutooy xépp waaye ñooñu mosuñu leen a wan yàlla mosuñu leen a wax itam yaa alxuraan jàngale bokk ci lu nit baax baax ak lu mu rëy rëy daraja fa sunu borom lu tax mu laaj la lu taxoon lu tax toppoo ko toppoo ko woon ba mu des Seydina Muhammad sallallahu alayhi moom ku wuuteeg moom jaxanama di sa kër ëllëg koy topp da nga koy topp ci topp gi mu topp Seydina Muhammad ku deful noonu nag bis penc da bokk ci ñi nga xam ne sunu borom nee na ba keroog dañuy matt seeni baaraam di wax naan yaa laytani ittaxasuma rasuli sabila ak ne xam ma jàppoon yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te toppoon ko yaa waylatee laytani la may taxis fulaanan xaliilaa naan ak a neexoon moom ma jëloon jàpp diw def ko sama xarit def ko sama àndandoo te ñu bari ci ñi ñuy wooyee sëriñ soosi sëriñ Tuubaa di wax na ay fiir lañu ay junni junni nit ñoo topp seen gannaaw waaye du ñu leen wax lu leer mukk du ñu leen wax li yàlla wax du ñu leen jàngal itam sunna sayyiduna Muhammad te borom bi nee na bokk na ci màndarga naa fekk rek nee na naa fekk du wax lu leer wala taxrif anhum fii lahnil qawli kon mbokk yi képp ku mbooloo jiital ngay dox doxin wii sëriñ Tuubaa nee na kooku mu ngi bokk ci sëriñ si nga xam ne ay fiir lañu te sëriñ bi nag ba mu waxee wax ji yàgg na ndax moom ci boppam rek ba mu fi jógee dafa yàgg téeméeri at yu mag juróom-ñett ba mu fi jógee ak léegi dolli ca nag ba mu ko taalifee téere bi lam nekkaat jamono la waxoon lii kon su fekkee woon jamono ji xamuma wan tur lay lay tuddee sëriñus lépp ci sëriñus léegi si moom sëriñ Tuubaa nag moom mbiram leer na nañ ñëpp jant dafa wax ne yaa ayyuhan naasu i'budu rabbakum bima bi xayrul wara jaakum nee na yéen nit ñi jaamu ji yàlla seen borom te su ngeen jógee ba di ko def def leen ko ci ki gën ci mbindeef yi li mu indi muy sunna mu tolloog waxe sunu borom ji muy wax yaa ayyuhan naasu i'budu rabbakum allazi xalaqakum wallaziina min qablikum la'allakum tattaquun te àdduna amul fitna ja bokk si bokk yi amul fitna amul coono ndax dafay jeex luy jeex lu nekk yomba lu la fi dal lu mu metti metti lu mu tiis tiis su sam xel demee ci ñi ci biir ñi nekk ci biir bàmmeele mu war a woyof waaye bànneex boo fi am lu mu rëy rëy soo xalaatee ne bàmmeel mi ngi lay xaar nga war caa bànneexu ndànk te dañuy wax ne lu ñu ne dafay jeex lu nekk ak seen ba noppi lu bari ci nit ñi nag réer bi ñu réere seen diine te kenn xamul leen ko mooy sababu ku woyofal gi ñu woyofal seen diine waaye lañu leen di soññ bët bu set di leen ko diisalal ña nga ca seen kem Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne yéen taalibe yi nee na su ngeen demee ba amut leen ku ngeen teg ku ngeen wóoloo teg seen kanam di topp di ko topp nee na jël leen li nga xam ne mooy sariyaatu nabi Mustafa sallallahu alayhi wasallam teg seen kanam te topp ko te su ngeen tee topp nag walaa takun mufarritan aw mufrita balistaqim fii sunnatin wa axsita nee na bu leen ci sàggan bu leen ci ëppal waaye na ngeen tànn ak njub njub googi nag na teg ci topp sunna Seydina Muhammad te ngeen maandu wa aqiru benn al istixaama nihayatu salaahi wal karaama nee na jub nag mooy dayob mbaax te mooy dayob karaama kon bokk jullit yi ñu bokk góorgóorlu suñu kem kattan ci weer wii ba suy dem yóbbaaleel nu xéewal yu bari ñu am ci itam yiw wu bari yonent saa sam nee na képp ku ci woor ñetti fan nee na sunu borom dina la màndal boo liggéey ca dex ga tudd rajab nee na dex ga moo gën a neex lem moo gën a weex soow te ku ca naan duto mar ba faw su ñu nee rajab nag ne saxbaan te ku ne saxbaan ramadaan moo cay tege balaa muy agsi nag sunu fi borom bi bàyyee nanu góor góorgóorlu ba teeroo ko buy agsi mu fekk nu sunu ragal yàlla dolleeku nanu ko teeroo xol bu mucc ci feebari xol yépp te mooy mucc ci bokkaale sunu borom mucc ci mbañal mucc ci càggante su ko defee nu ànd ak weer wii di rajab ak saxbaan ak ramadaan incha allah ci cawarte ci jaamu yàlla yokk gépp jàmm yàlla gu ñu daan def waaye nu góor ba ba bu góorgóorlu bu baax ci bañ cee tooñ sunu moroom bañ cee tooñ itam sunu moroom su ko defee gépp jàmm yàlla bu ñu def suñu noppee ñu tàllal suñu loxo sunu borom ñaan ko mu yàggal nu àdduna te may nu wér saxal nu ci ñu jàmm ko te bañ koo bokkaale mu musal nu ci gàcc ak àdduna ak àllaaxira waaye balaa ñu koy tàllal suñu loxo di ko di ko ñaan nag nanu sax ci li mu digal ba noppi ndax ca saar dafa wax ne bu du rabba haasal bayti jaamu leen borom néeg bii ndax mooy ki leen di jox ngeen lekk su ngeen xiifee waaye moo leen di sàmm itam su ngeen tiitee allah si atax ataxamahum min jooyin wa amano min xaw te ngeen bañ mel ni ñi nga xam ne su àdduna neexee xéewal bari ñu sant nit ne mooma su mettee lépp jafe ñu jiiñ ko seen borom mel ni moom lu mett rek la féetewoo moom lañ ko féetale yàlla na yàlla sàmm te jubal wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain